wa ala jamici alihi wa asxaabihi wa man ihtada bi hadihi ila yawmi ddin mbokki jullit yi nuy déglu dinu nu seetaan sunu image di bawoo fii ci université bu am solo bi muy mag Maktoum Prod di université boo xam ne tabaarakallaahu eh, lépp a ngi ci ci xeetu yiw xeetu yaatal xeetu jàmm xeetu defar eh, di nuyu nag mbooleem auditeur ak auditrice su télévision bu am solo bi waaye di nuyu tamit tabaarakallaahu directeur bi eh, muy tabaarakallaahu sunu wëllëre sunu mbokk eh, Cheikh Ahmed Tidiane Diop wala am Cheikh Ahmed Tidiane Diop jaarale suñu nuyoo ci moom mu jëm ci mboolem personnel bi nga xam ne ñoo ŋànk université bu am solo bi di am mbégte lool nag ci dalal leen ndax eh, wax dëgg yàlla itam sama sama télévision gi door a agsi na waaw dëgg la nag te de samay tere la samay soppe lañu samay fans lañu waaye nag Maktoum moom bu ñu ko ci tuddee rek tabaarakallaahu day daal di am lu mu feeñal te waxtaanu tey nag e, tabaarakallaahu ni ñu ko sàkkoo ñun ñëpp te yaakaare ko noonu mooy xam ngeen ni noo ngi ci mois de mars xam nga 15 mars moom Sénégal dootu ko fàkk fàtte benn yoon ci lañu am élément bu. quitté réew mi quitté Afrique mën naa ni quitté monde bi yëpp meloon ni benn espèce jamaa bu nu yàlla dénkoon ñu di ko euh, bége mu bett ñu jëlewaat ko ci sunu loxo muy fadilatu cheikh al mubajjal al muhtaram Cheikh Ahmad Tidiane Sy al Maktoum radiyallahu taala anhu ñu di ko fàttaliku nag ah spécial si Ahmad Tidiane comportement ak njàngaleem mooy suñu waxtaanu tey donte nag eh, xamal ko yombul rawatina nag ngay xam léppam ndax turam woowu da cee jël lu bari muy dàkkantalam boobu di almaktum آه، الكتمية آه، مرتبة الكتمية ينغا خمني دون نينا كو تروندوم با دانك بوني مكتو نيب سين خال داي دالي اورينتي وو ديريكتومون سي موم ا بات بي ساخ تودو نكو موم تي بوبام سي داجي مالك ديك نكو تودو باتو ا كاتمي بوبو دي تي ملال شيخ تجاني شريف الفاطمي moom itam tudd na ko moom sëriñ Cheikh Tidiane si almaktum parce si daaji Malick daf doon wax ni àdduna dafa xat ci exposé mayu cheikh àdduna daf cee xat espace espace bi ñuy wax àdduna pour exposé ci mayu cheikh àdduna da cee xat moo tax mayam yooyu ñu daldi koy am fu ñu ko tëj denc ko fa nëbb ko fa daa ji Maalik wax ni laa taxmilanna fuyuudahu haadi duna wa lidaaka kaanat fi iktitaamin muqfali ne laa taxmilanna attanul fuyuudahu mayi cheikh yi bëbbam yi haadi duna sunu àdduna si tuuti si attanu ko wa lidaaka looloo tax kaanat fictitamine fictitamine ji boo ko dégloo di nga ci sentir kat mi bi ma lay wax nii fictitamine muqfali mu nekk ci ak nëbb goo xam ne dañ koo kànnaar tëj ko ndax mënul àdduna xajowu ko dañ koo denc fen waaw sëriñ Cheikh tamit tudd na baat bi ci xasidaam bu fa ilayka yam na ma xam Muhammadin naadaani tudd na ko wal xaqu annaka qad ataaka mubashiran xayrul wara bil xatmi wal kitmaani nga gis ni baatu katmi bi feeñaat na foofu seeni cheikh it wax ni wal xaq ca dëgg-dëgg qad ataaka dikke ne la mubashiran di la bégal xayrul wara ngeen ji mbindéef indil la cadeau indil la médaille buy tudd xatmiya ak katmiya mu ne wal xaqu kat at ataaka mubashiran xayrul wara bil bil xatmi wal kitmaani mu jël ca wàllam nag ba boo nee Cheikh Ahmad Tidiane al maktum boo yemee ci al maktum ji rek Sénégal àdduna bi yëpp daal di xam ni Serigne Cheikh da ci jublu jàngale na nag lu ne leeral na ci alquran lu lënt leeral na ci xadis lu lent leeral na ci xaqiqa ak tariqa loo xam ni bu dul woon moom du leere noonu ci noonu li mu wax ni bu dul woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallama cheikh moonu moonu moonu jàngal wala moonu interprétel philosophie nee na yonent bi moonu moonu interprétel philosophie asamaan bu dul woon yonent bi duma ko xam waaye itam philosophie yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it nee na bu dul woon sama turandoo du duna ko xam nee na boobu yi tamit bu dul woon Maodo duna ko xam nee na bu Maodo yi du loon sëñ Babacar duñu ko xam waaye même bu sëñ Babacar bu dul woon moom duñu ko xam ndax euh, tasalsulaat yooyu muy def ci waxam ñun dañ ciy dégg lu rëy ndax dañu toog ak moom ca stade euh, Demba Diop mu ne Serigne Babacar dama ko laaj ne ko almartabatul fardiya ñan ñoo ko amee woon ci tarixa bi booba xam na ne bu tëbee tëb ni sëñ Babacar ndax almartabatul fardiya amee nga ko ak sëñ Babacar ni muy raso di moytu lu ñëw mu samp Maodo dégagé wu li mu bëgg a xam du ko xam mu daal di koy laaj ni ko almartabatul fardiya eh, ñan ñoo ko am ci tarixa bi nee na sëñ Babacar ni ko ah xam naa ci ñett de sa turandoo de amoon na ko Cheikh Omar Al Fouti amoon na ko sa maam si daal ji Maalik it amoon na ko xam nga ba léegi Serigne Cheikh li muy laaj li mu bëgg li mu bëgg la xamagu ko Serigne Cheikh nee na mani ko ku ko xam ku ko am nu koy xame nee na mu ni tekk bàyyi mu ne ah boo dee boo nee tëll génn day ku la gis di la bëgg a far wan na te bindoo kenn lettre campagne oo kenn propagande oo kenn mandarga la ci suñ nee na ba mu waxee loolu ma xam la ma xam mais moom tamit bi mu waxee loolu nun itam nu xam li nu xam ñu toogati ci kër jëmb muy lim ni Cheikh Tidiane Chérif am na fukki at ak juróom ñett magi Maroc di def ay dog di ñaan xale bii yàlla bu mu fi màggee yàlla bu mu am ñaar fukki at ndax booba nee na turandoom al ulum al ulumu naqliya ak al ulumul aqliya ndar na ko képp mokkal na alquran ci jàngin yëpp di consulter nitu yàlla yi ku mu dégg ne am nga yàlla mu dem ci yow wan la yar ak teggin ba nga xam ni xale bi féete na la kaw nga jox ko la nga yoroon mu jàll ci keneen nee na cheikh ñu noonu ko lool dem na ba ilimaan di ñu fal noonu nga ko nee nañu di ca dema dema dema dem di dem ba Cheikh Omar Fouti yu di taalibeem nee nañu dem di dema dema dem ba Cheikh Alhaji Malick di taalibeem na ñuy dema dema dema dem ba Serigne Babacar Sy di taalibeem nee na ñuy dema dema dem ba ka kenn mënula tudd ci taalibeem man kenn kan la bopam la tuddu bopam hmm hmm nga xamni bopam lay jundju lima la wax ni jàngale ne tamit yete na ci alquran ayat yi duñu ko deg waye bu ko firee rek nu deg ko xam nga bi muy firi wala nabluwannakum bi shay'in min alkhawfi xawfi wal من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بام كوي فيري موني ولا نبلونكم يلا نينا دينا لين نتو دينا لين نتو بشيء تي لين من الخوف تي الرجل والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات لغا دان باي دوندو تبا اتما ديلوسي بوكو بايي دو اغ فوفا لغا دان فايكو سالير dund ca ba weer wa deeyaat boo ko fayee ko du àgg foofa dinaa leen nattoo it lu lu lu jàngoro tuut tuut faat bakkan mu ni yàlla nee na yonent bi dinaa xool loolu ndax di ngeen koy dugal ci seen biir xol wala da ngeen ma koy delloo bu ngeen ko dugalee seen biir xol ma bàyyi leen nag moom bu ngeen ko bu ngeen ko dugalul seen biir xol ma tegg ko mu ni wa bashiri sabirin kenn du ko firee muñ nee na muñ dafa late da ngay wax wa bashiri sabirin bégalal ñi mu àggul ci seen xol nee na muñ dafa late xam nga nitu yàlla nitu yàlla piir de dul installer crise ci biir xolam ba ngay gis ci moom souffrance buy tax nga naan ko muñal lu feeñ ci comportement bu dee muñ nag muñ moom dafa lar ñëpp la daj mais am na ñoo xam ne da nga leen ciy génne ñooñu kenn du leen ni muñ leen parce que xajaluñu crise ci seen biir xol ndax Serigne Cheikh daf daan wax ne crise ubbil ko sa biir néeg wala sa biir kër mu dugg fa te bëgg ubbil kër yàlla soo ko ubbilee kër yàlla te mooy xol bi yàlla génn ndax yàlla dafa fiir xolu jaam xolu jullit yàlla rek a ci xaj te xaju caag leneen kon nag néeg yàlla boobu kër yàlla googu bu ci dugal crise dugal ko nag sa biir kërug bopp soo ko bàyyee sa biir kër moom crise bi dugg ca salle de ca magasin de ravitaillement ba yàqu jaxal ko tàkk dugg ci sa armoil màggat sa yére dugg sa compte bancaire vidé ko dugg ci sa santé jaxase ko waaye loolu yëpp sa kër la waaye maadaama dugaloo ko kër yàlla rek yàlla dina génne ci këram googu wala boog dina nekk ci këram googu intervenir ba leen a xare woon fag moom noonu la ko jàngalee sëriñ bi jàngale tamit eh, ci alquran ba tey wama ramayta id ramayta walakin allah rama ñun bu nu koy firi ci firi bu gën a xoot kat boo xam ne bu nu ko firi ba pare dañuy jaayu di wane nit rey nañu toj nañu foofu wama ramayta boo sànnee wama ramayta jamuloo ndax baat yi baat yi ñoo niroo mais tradition yi foog nga soppi ko tuuti pour mën ko dégg ndax boo ne wama ramayta sànni woo ba nga sànnee wala ki na la rama ki ngay waxal du la waaye wama ramayta bi nga sànnee wala ki yàlla moo jam ñun noonu lañ koy firee nag di ko tiitaroo Serigne Cheikh nag bi koy firi daf ni wamaa ramayta is ramayta walakin la rama nee na boo dee sànni yàlla nee na boo dee sànni tollaleel sa mbagg ak sama mbagg ma jël saan wa teg ko fa nga bëgg ñu ni yow hmm? xoolal googu dégg hmm? xoolal googu dégg gu kawe ci alxuraan bu la ko firilee rek nga xam ni gaa yi ni ñu koy fire léegi-léegi mu des bu dee ci ahadis yi yi tamit léeg léegi ah man dinaa koy faral di nett lu bari parce que dama daan dégg am na sax ñuy wax ni hadis la am na ñu ni daif la am na ñu ni sax wérul fi ñuy wax ni kaadal faqru ay na kufran ñu ne yonent bi dafa wax ni ñàkk ñàkk xaw naa doon kéefër wala sax ñu ne ñàkk ak kéefër ñooyam man dama daan wax te ñi mu koo yëkkati ca kaw kat ñi ma ma ko dama daan wax naan man de yonent bi nu mën a waxee loolu ñàkk te parce que ñàkk yàlla yàllaay maye nit du may boppam du xañ boppam kon nan la mën a waxee nii ñàkk moo kii firayam rek ma dégg Serigne Cheikh di daa ne kaadal faqru an yakuna kufran na ñàkk goo tey moo xam nga moo yaakaaral ñàkk goo tey mooy lànk ba ñu ba ñu te ñàkk xam nga moom waxam dafa rëy. parce que dee na nee na ci benn benn benn waxam sëñ Cheikh nee na gudd fan ak gàttu fan nee na yàlla doguwu ci ci nit ki la aju waaw xam nga loolu da ngay jaaxle gudd fan nee na nit ki gudd fan wala mu gàttu fan mu ngi dépendre ci effort am rek ak yitteem am amam ak ñàkkit mi ngi dépendre ci effort ak yitteem xam nga tax ma gën ko. bu la neexee dee léegi bu lay neex di dee léegi génn léegi dem ci tali bi làqutu ci ci bi rek ba benn oto du ñëw ak allure nga daal di plongé nga xool kon nga xam ni gàttu fan gi moom ak gudd fan leer na nañ li ma waxit ni am gen ñàkk gi itam ci nit ki la aju man bu négatif bi ci nga ci laa ci laa koy ci laa ko dégg gis nga boo doon tey milliardaire nii nii tey tey fii nga toog ñu lay ñu lay rang ni milliardaire bu la neexee balaa jant soo nekk miskin bis boo jëlee alal ji may lépp mais bu ci nekk nag beneen baa gën a jafe waaye effort la dee gi léegi mu bu négatif bi moo gën a yomb ñàkk gi léegi moo gën a yomb waaye gudd fan gi moo gën a jafe mais effort la am am bi moo gën a jafe parce que effort la moo nekk gudd fan ak gàttu fan bu ci nekk yàlla doguwu ci ci nit la dépendre jàng leen lu ne daana wax itam comme nii ñu pose question bi ci ci ci bésam ci weeram wi nee na dama dem seeti eh, alxaaja Abdul Aziz si nee na laaj ko lan la gën a lan la gën a yéem ci alaaj Siraaji Maalik nee na mu ni man day li ma yéemoon ci Maodo mooy yaru woon na ba mel ne ab xale bu daan lekk sax da nga koy yërëm ndax yar nee na ëmmat loo it ma laaj ko ni ko loolu lan nga gën a yéem ci Alaaji Maalik mu ni li ma ci gën a yéem day fekke naa mu boyal lu ànd ba ànd bi yànj mu boyal lu mu boyal loo soxna si ànd ba ànd bi yànj nee na soxna si teg ànd ba ci suufu porte-manteau ba fi muy wékki yére nee na fi ñu toog rek mbubbam wadde ca kaw porte-manteau bi rek dal ca kaw ànd ba ci ànd boo yànd gàññ bay bérëx nee na ma daan ni ma ni ma ni soxna si dawal euh, mbumaa ngay lakk nee na Seydi Hadji Malick ni ëpp naa wax yàlla du lakk sama mbubb te nee na effectivement ba ñu yëkkatee yére ba yére ba lakkul hmm? nee ba bañ ci neen ci koo xam ne du woote dara du woote maqaama du woote nii laa toll waaye nee na ba ñu yëkkatee mbubb ma mbubb ma lakkul noonu nee na loolu ma yëm la man sax su ma daan waxtaan ba agsi fii daan wax ne loolu de ku ko mën ci mbubb njaboot la déggal topp la war na ci man dara ba nag jamono xuloo la dama daan xuloo ndax bu ma dama daan xuloo ñuy wax naan ku topp sëriñ eh, ne da lay yóbbu àjjana sëriñ mënu laa yóbbu àjjana nangam man leen mais man li ma ci jaaxal ñun ñëpp d'accord nañ ne ku topp iblis mu yóbbu la safara waaw xanaa kon war noo mën a rafet njort ci ne ku topp nit yàlla bu tëdd Seydi Hadji Malick mën na la yóbbu àjjana hmm? li benn góor doon misaal ci bi Serigne Cheikh waxee ci gàmmoo gi nii yenent bi e, fu ñu ko tàntal dina fa ñëw même bu fa dul yàgg dina fa ñëw dafa yàgg nag waaye dina fa ñëw mu ni jaaroon na fi sax daaw ba am na lu ko yóbbante wa kafal mu'minina al qitaal nee na mu ni nag am nañu ko weddi ndax nee nañu li di tànt ci àddina bi yonent bi di kenn nan la mën a teewe ci tànt yëpp nee na ma ni leen ah jant bi benn jant la te mooy leeral fépp te yonent bi képp leer ndax leeru jant bi ci yonent bi la jógee kon bu ko bu ko jant bi manee ci mbaaxu yàlla yonent bi war na ko man benn boroom xel nag daal di gis ne sax nag nit ñi dañu xaw a am tuuti ak euh, jalousie waaye conneries yi am ak bêtises yi am ci monde beeg fu ne ku waay dégg daal ni seytaane bari doole ni seytaane xeex ba ca Ukraine ni seytaane la xeex ba ca Mali ni seytaane la ku fajante ba ca garage ba ni seytaane la te nanguwuñu yeneen bi mën teew ci jataay yu bari pour wax na ni marabu Cheikh ku eh, yéeme yéeme la te nag dundam yëpp nag duggul ci xam-xamam dëgg duggul ci wilayaam ñi mu yar ñëpp mi ngi leen ci xel orientation yi def ci xel la ko def mais laalul sax utiliser wul sax waaw utiliser wu ko sax مي لي واحد يترونوم اقترونوم لي لي لي واحد اقترونوم تركنا تركنا البحار الزاخرات وراءنا فمن اين يدري الناس واين توجهنا نانا في خم ني جالنا دروم نياري جيج با فلي تغريم تفاسغا يوم ميغا خم ني بو جيغي تفاس بو جيك غيلاب نو خامي فمو تول تركنا البحار الزاخرات وراءنا بايرنو اي جيج موي فور تاتولو غيناو موي فور gis nga bu ba bu gaal gaalu looco jaaree ci biir ndox dangay gis ndox mi ni muy cott ko ci ginnaaw di fuur mooy zaaxiraat taraknal bihaara zaaxiraat yi war a ana fa min ñi fan la ñuy xamee fan laa eh, ci ci moom itam ci wàllu léeg-léegi nag séquence yu gàtt yoo xam ni dina sàcc rek ndax téye njabootam dina sacc rek ñamal leen ci tuuti waaye sax dina ko dabaatal ndax nee na nga tudd sa cër ñu wàññi la ak nga bañ ko tudd sa njaboot dugg ci kàmm nee na nga tudd ko ñu wàññi la bu ko defee nga rattrapé ko dabaatal waaye beneen bàyyi ñu dugg ci kàmm nga tudd ko ñu wàññi sa maqaama wala nga bañ ko tudd ñu dugg ci kàmm loolu moo ko daan war tax mu wax ba muy nekk lu yoonu gambi wa Sëriñ Cheikh ñoo ngi toog ci kër jëmb mooy ni sunu yoonu gambi wa mooy tournée yi mu daan def na ñëw ba kaw lax nga bu ñu ñëwee ba kaw Kaolack dañuy xool yoon wi nee na bu ñu ñëwee ba Kaolack mag ñi ni ma naa am ku fi des fii ci Kaolack jot leen yéen yéen ñi dem jot leen cest à loolu la mu ko junj mooy na am ku fi des ba kanam yéen ñi dem ngeen dellu si waat yéen ñi dem kenn du dellu mais mu tënk ko ci mag ñi ni ma na am ku fi des jot leen nee na ma daal di tànn kañu ma tegtal tudd tur wi de mhm. man xam naa tudd waaye comme tudd ko man tamit du ma ko tudd nee ma tànn kañu ma tegtal nee na ba ma ko waxee ne ko yow doo mën a dem Gàmbi da toog ci néeg bi xaar ma mhm. nee na mu jooy jooy yu metti mu jooy jooy yu metti ku mu dem ci ñaan ak tournée bu toll ni Cheikh Ndar tere wax leen ci nee na ku ne ñëw ñaan ma nee na ma ni leen na tëju ci biir néeg bi bu tëjoo ci biir néeg bi daal dina am lu ma man su su tëjuwul nag du ma warlu dara nee na mu dugg tëju ci néeg bi nee ñu dem Gàmbi ba wiññeeku ma fekk ko ci ñu tëral ko ci buntu jàkk ji di ma xaar pour ma jullee ko nee na man leen lu ngeen doon def ba lii dal ko ñu ne daf doon dem kër ma jabel nee na man leen def ngeen ay bu tëju woon ci néeg rek ma nangu ko c'est-à-dire bu tëju woon ci néeg bi dina nu jot ndax loolu la mag ñi wax waaye du tee dinaa ko récupérer waat ci ñoom man mii maa sol sama dàll di laajte di gëstu ba ñu nu ma diw la problème bi nu mu demee ñu ni dafa jógoon ni day dem seeti mel mbokk kër ma jabel génn ci néeg bi mu jaaree ci trottoir bi di dem genn camion bu yëpp mat moo def secousse benn matt wadd ci kaw dal ci bopp bi mu mu mu gaañ si la waaw loola wax na ko ndax njabootam xam seen kilifa fu mu toll waaw wax na ci kër jëmbit nii léeg-léeg nga am sa njaboot bëgg ko lool mu yàlla jël ko nga ni ko dundalaat ko loolu tamit séquence la bu ndaw bu mu junj ak la mu doon wax ci sëñ Pape Malick nee na dafa feebar feebar bu méttee métti sëñ Babacar woonu ci guddi ni ma ne waxal leen ma yàlla bu mu ko yóbbu ndax dama koo tuddee ki ma gën a bëgg nee na nu jaaxle lool ndax boobu Pape daanaka dara desu fi waaye nee na ca mujj hmm? yooyu nag ay junj yu ndaw a ndaw ndaw ndaw la yoo xam ni daf koy junjal ndax réew mi lu nekk nag mooy réew moo xam ne neexu la waxee ci jamono boo xam ne boo dee sama sëriñ eh, gis na yàlla nit jóg ngir rivalité ak wujje ni man sama sëriñ ak yàlla bokk reer su boobaa da ngay faral faral noppi rek moo tax daan na nettali nettali na ci gërëw maa ngi toog nee na suñu Babacar nee na doon wàll yu doon borom xel mu rafet moom ma ko ndax wàllu yu dina dof te wàllu wu def du xam fu mu jëm du xam fu mu jëmee nit ñi moo tax nekk borom xel mu rafet moo gën kon tabaarakallaahu ah moom eh, imam Cheikh su turandoo woowu daal mën nañ cee wax tuuti rek waaye wax lépp du yomb waaw de façon daal ci wàllu jàngaleem ak comportement mi tam surtout comportement bi ci xeetu yiw moom moom mësoo dégg ci waxtaanam conférence ak gàmmu ak lenn muy wax waxinu ku lay jéem a convaincre yow mi seetaan pour nga jël tarixa cheikh nekk tijaan mas nga dégg ci waxinam waxinu ku lay campagne déedéet nekkal nit rek boo de tarixa boo mën a bokk doon fa nit loolu mooy mission nite rek nee na ki toog ba yàgg mu ni man de du ma jullit nee kenn laaju ko niteel rek nee na ki ba mu ni man de jullit laa kenn laaju la ko niteel rek ndax boo nitee kenn du loroo ci yow moom orientation bi yëpp mooy nanga nga na nga nite te na nga yiw bi ñu ko laajee ndax baal baal def naa baal baal yi ñuy def baal yi xale yi def ndax dagan na mag def ko mu ne li ñuy jëkka laaj mooy ndax yiw na ndax lu yiwul lu ci mag di jullit lu yiw dagan na ci moom lu yiwee di daganul ci moom mu gàtt hmm? nee na nee na bi Sëñ Babacar génne àdduna problème mu problème bi ma jëkk réglé problème mu jàkk la ñu tabax seen jàkk ba pare di revendiquer ni jàkk ji dafa jubluwul xibla mu nekk problème bu rëy ci ñoom nee na ma dem fa di ko lijjanti ñu di ma jaay fiq te loolu fiq di ko lijjanti ma ni leen jàkk ju ñu tabax jubluwul xibla jarul coow yéen ñi julli lañu wax ngeen jublu xibla ah échappé waxtu bi ba léegi amagu leen problème bu julli mu nekk it koo xam ni boo ko royee ci wàllu col yiw gis nga sax léeg-léeg nga dégg ko naan diw day roy seen cheikh roy ko roy ko dara gënu ko léeg-léeg sax nga ne diw day toppandoo ma ne ba tey baax na ndax koo xam ne boo ko toppandoo yiw jarul la bañ a toppandoo waaye roy gi nag moo gën ndax boobaa dangay ngay roy jikko yi ak melokaan yi ak méthode yi waaw lenn laa xam daal moom boo ko dee roy ba si fa day am bu la dese boo ko dee ci tabe dangay am ba noppi waaw ko bëggee ci tabe da ngay am ba noppi ndax la mu amoon la mu manoon moom ku amul dara mën ko nit nag am na lu ne am na sax lu ëpp la mu amoon te li mu mën mënoo ko bu la joxee rek sa aajo faju tabe lool am na ñu ma nettali nii bi soxna umu xëy umu kalsum umu xëy yi mu yore waañ mu soxna umu mu feebaree nag hôpital principal am na bis bu ma ko doon seet si ne dafa ñëw ba ci bunt bi mu jul wàcc eh, bi ñu ko laajee dafa ni li tax wàccul mu dafa dafa yónnee rek daal di toog ci oto bi ndax nee na dafa fàtte dafa fàtte ba dàll yi mu sol

waaw mu dem ci titre foncier boo xam ne moo ko moom réparé ko nañ ko fa def isolé ko wax moom lu mu am jël waaw hmm. kon ci turandoo woowu maam Cheikh ah 15 mars Sénégal dootuñu ko fàtte ah waaye nag nee na moom mbiram du luy fay waaw li muy taalif xasida wax na ko ci biir muy fa ilayka yam na Muhammadin naa daani شيم تحقق جوهر الإنسان وركبت نحو كزهر كل عجيبة من حكمة ومليحة الأوزان والشوق فيك وهمتي في رغبتي بمجاهل الآيات فقاداني ما منطق إلا ودون تعقل ما عبرة إلا ودون بيان وتزودت نفسي بكل بديعة وبدائعي تبقى على الأظلام jamono du بيدي مرنا مرنا naa mer naa waa Sénégal loolu la ndax dañu ko réere ba mu waaye lii nii ñu yittewoo di ko tiktok suba ngoon bi mu nekkee fii xëy di xayaa amaana bu ñu ko doxale woon réew mi dina passé fii bi mu génnee àdduna te journaliste yi di ma laaj ci mosole bi ni ma noo dunde lii man leen fii mu dem nag moom fu mu miin la waaye nag yoon wi mu jaari bii yoon fii la daawul jaar ndax yoon wi ku fi jaar doo ñëwaat waaye xobu yam daan li ak di wax ni diggante eh, xayb ak shahada bu doon rideau fi dox bu bu fragile la bu woyof la ak la mu daan nettali ci barsax di nga xam ni foofu yàgg na faa dem miin na ko mais bunt bi mu duggee bi yoon boo bunt ku fa duggee doo ñëwaat te mooy bàmmeel waaye eh, tabaarakallaahu yal yàlla gën ñu li defal tawfiq gën ñu dolli jàppale eh, taas na ci barkeem ci barke yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam barke turandoom bi eh, Cheikh Ahmad Tidiane شريف الفاطمة jërëjëf yéen kàddu gay ñaaxee nag ndaw ñi ci góor gi ñu mu daan ñu mu fonkee ndaw ak ci réew mi toll ak ndaw ñi seen doxalin dama lañu ci waaw waaw ndaw ñi da leen di jox wax sax wala yaa ayyuhal awlaadu inna sunwakum yazdaadu bil ikhlaasi wal wal insaafi usikum bi salaasati min sha'niha tashiilu sayrikum ilal ahdaafi wax na leen lu nekk waaw ba ma ci gën a neex nag li mu leen wax ni nañu moytu sëriñ sëriñ a sëy wax ndax nee na da lay diri jëmale ci doy di xaf la waaye nee na daal sellal ak takku temm te sonn ñase nee na mooy moo leen di dimbali mooy mooy jàppandal seenu yoon pour ñu atteindre seen objectif kon ndaw ñi dañu war a takku te taxaw ku ko ci ndaw lu ko ci déglu raw mag mu ko ci déglu raw nag ci wàllu jàng wàllu jaamu yàlla wàllu liggéey takku liggéey e, tabaarakallaahu te moytu anarchie moytu fawda coow lu dul jeex coow suba coow ngoon comme lu xew léegi rek sëriñ Cheikh artuwan leen ci ah xale boobu mu wax suwan laay nga xam ni xale la bu jàng lu nekk te sëriñ Cheikh nee na ñekk du jullit waaye jàng na ba xam lu nekk te débordé wul mu war a teg tànkam teg na ko fa xam na boppam mu génn àdduna ci koo xam ni chrétien la seen cheikh woy ko ba naan ko bu dul woon njubug lislaam gi ma tànn dinaa roy seen njub si wan laaya laa tarxal anil aalami alladi tumaziquhu aydi tuxaadil tuxaatil ajaanibi te biir wooy wala ko wax ni walaw laa hudal islaami laa aqtadi hudan yuxaalifu maa fi xisbikal mutajaawibi te kooku ndaw lu xam boppam lay wax waaw kon tabaarakallaahu tey yaatu dënn loolu tax tabe ci ruux mhm. la yàlla fayal ñu ko eh, maam Cheikh xam naa bu ñu bëggee wax ci Serigne Cheikh moom xel ma day ràcc fu ne mu bëgg faa tibb waaye ñu ngi leen ñu ngi lay sant bu baax di gërëm télévision bi mhm. ah di ñaan yàlla yàlla gën ñu dolli taxaw waaw bis bi day maam Cheikh mooy conférence bay def chaque année mhm. ndax man lu may def ci ndigalu Serigne Cheikh tabaarakallaahu laa koy def ndax mooy sama sëriñ conférence boobu euh, def naa ren mooy vingt septième édition ndax covid bi moo ko téye woon muy jigéen ñi may jàngal fii nga xam ni jigéenu kër gu nekk waaw njabootu kër gu nekk fii daje ma leen di jàngal seen wàllu diine waaw ay ati at ñuy def conférence ci koor gi Alaaji Siise Jingee moo daan ñëw représenté Serigne Cheikh ak njabootam di sama lépp yàlla dogal bi mu génnee àdduna ak léegi mu matagul sax at ren nag bi ñu yëkkateen dañ koy defaat après Covid bi ñu ne dañ ko ciy defal hommage ak sama wëllëre bu baax bu ma soppoon te jox ma cër joxoon ma cër lool muy El Hadj Ndiaye daan jàppale ma fii di ma jàppale ci njàngale waaw jàng na ba mokkal alquran am diplôme am ñëw jël diplôme bi jox ma te sax moo ma gën a mokkal ni ma téyel diplôme bi sama gën

كي خيو لان موتي سين تخواي الاستاذ امام حسن سك سما ولر لا ديكو باخ نك مامي تاميت داما كوي خول شي والله نا خيما بوكو نو عقيده تي والو غم غم واي تريول نا نيت كو ديبوردي تي دافا يو يارو ام خام خام ما شاء الله خام خام رك مونو كيتي الله دي سامبا شيخو جا ديريكتور نيكون ديريكتور لاكوفا تاي ميغي تي نين اكتيفيتي يو غنا كاوي موي بريزيدان دو نورو داراجي مام موكاي اي تبارك الله بريزيدي مو يوري لب dañ tam ñu jagleel ko ci ndigalam moom Samba Dia eh, am na xadra tijaniya bi nga xam ne niveau international et national te Fata Sar jiite ko wax naa leen nag ni leen Fata wutuma ci yéen dara ndax yéen bu ngeen amee lu ñuy lu ñuy lu ñuy ba leen di tuddee programme dañ leen a war a auditer ndax li ngeen am yëpp dafa dem ci xadara bi kon dama koy def rek pour wan leen ni maa ngi seen wet pour jàppale leen pour dëggal kàddu sëriñ Abdou Alamin ñooñu tabaarakallaahu li ñu ko tuddee sëriñ Issa Touré tabaarakallaahu dina ko teewe di yàlla bu baax di responsable moral daayira sopp na bi yoo nag am gi jàmm yëpp nag ku soppee ndax mënoo dem fi ñëpp am na ci ñoo xam ne sax par whatsapp laa leen yónnee carte donte léeg-léegi di di nga dégg ni ku ni manque de respect la waaye tamit ni jamono demee la rek bu ko defee tamit ah, maa ngi ci woo euh, Maktoum Pro nga xam ni mooy suñu télévision ah ak mbooleem euh, presse bi ak tabarakallaahu réseaux sociaux yi nga xam ne daal bis bi bis baa